gouverneur de Dakar a lui interdit la vente de carburant en vrac et la circulation des motos, renseigne Réumi qui signale Dakar Demdik à l'arrêt. Et dans le cadre de cette anticipation du régime, Vox Populi nous apprend que quatre individus ont été arrêtés avec un arsenal de cocktails Molotov hier, veille de procès en appel de l'affaire Prodac. La sûreté urbaine les a fait tomber à Malika, précise Vox Populi qui signale un marabout, un menuisier aluminium, a déjoué. Ce journal euh, dévoile comment la sûreté urbaine a déjoué ce projet de cinq personnes qui ont été arrêtées à Malika. Elles auraient projeté d'attaquer le terre des magasins Auchan, entre autres, et lors de leur interpellation, des cocktails Molotov ont été retrouvés, souligne enquête. L'observateur qui livre la même information rapporte aussi les premiers éléments de l'enquête avant de pointer le danger d'inéligibilité qui guette Ousmane Sonko à de Sud Quotidien qui évoque aussi le jugement en seconde instance des députés du PUR Massata Sombe et Mamadou Niang. Le regard quotidien qui jette un coup d'œil vers Cité Gorgui nous amène derrière le silence bruissant de Ousmane Sonko relativement à son procès en appel contre Mambéignan. Ce journal pointe ainsi une nouvelle stratégie adoptée depuis l'annonce du verdict et constate que Sonko change de fusil d'épaule pour la deuxième manche de ce procès. Un silence diversement commenté à la page 5 de ce du journal journal Yor Yorbi, pendant ce temps, des partisans d'Ousmane Sonko se disent déterminés à résister pour lui éviter le syndrome Mamadouja à travers ce procès contre Mambaignan. Le professeur Maritonian, au même moment dans Réumi Quotidien, dit craindre une volonté de l'État de dissoudre le PASTEF en plus de rendre inéligible Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de Le président du mouvement pour la transformation nationale MTN Motna était l'invité du grand supérieur de la recherche et de l'innovation a saisi l'occasion pour dévoiler un pan de son programme, non sans commenter la situation politique du pays. Et sur la sortie d'Idriss Seck, Maritonian estime que le président du Conseil économique, social environnemental cherche à protéger son fromage. Parlons justement Didi qui est attaqué au lance-flamme par la PR après sa sortie de vendredi dernier sur on en croit qui livre la contre-attaque qui a que le président Macky n'a plus le droit de briguer le suffrage des Sénégalais. Mais allant au-delà des faits, Hassan voit, il toujours dans le maquis. Une analyse à lire à la page de Réumi Quotidien. Et dans le quotidien L'Info, il est poussé vers la sortie suite à sa déclaration de candidature et ses propos sur le troisième mandat de Macky Sall, nous apprend ce journal, pendant que le journal de Madiambaldian, le quotidien, voit Idi sur 16 éjectables, contre le président et économique demande son départ et Amadouba, comme pour jeter de l'huile sur le feu, déclare dans ce journal, je cite, On ne peut cheminer avec quelqu'un et vouloir se dérober. Ce qui fait dire à Wolf Quotidien que Idi est dans le champ de tir de Beno Bokoyakar après sa sortie. Dans les colonnes de Wolf, Maître Oumarium estime qu'il ne peut rester dans la majorité. Il manque de courtoisie, renchérit Pape Mahawadjouf dans Wolf, qui donne la parole à des analystes journal où Amadou Ba sort ses griffes au moment où dans Dakar Times, Samuel Sarr, le président du Parti libéral social sénégalais, juge inacceptable les propos d'Idriss Seck contre Maître Abdoulaye Wade et Samuel Sarr y va sans réserve pour décrier le comportement de l'ancien maire de Thiès. Si Samuel Sarr est en colère contre Idriss Seck, c'est tout le contraire pour le Parti démocratique sénégalais si on en croit les échos où le PDS indique qu'il ne répondra pas temps, dans Vox Populi, Abdou Sané explique pourquoi Idriss Seck ose défier Macky revenant sur la sortie du président du parti Réumi. Réumi qui a ses députés qui pourraient fragiliser cette précaire relative majorité parlementaire, fait remarquer le coordonnateur de Pastef Ziguinchor et ancien député. L'ancien ministre Alun Sar, lui, si on en croit Wolf Quotidien, balise sa voie en direction de la prochaine présidentielle avec la convergence pour une alternative Et à cette élection, Mamoudou Ibrakan n'exclut pas d'être candidat, nous apprend le regard quotidien. Au moment où Besbi constate que le F-24 singe le M23, revenant sur le lancement du mouvement des forces vives contre Macky Sall. Cette plateforme est l'œuvre d'une co aboutie, affirment ses initiateurs qui ont pour objectif de pousser Macky à renoncer à un troisième mandat, à supprimer les articles du code électoral et le parrainage. Mais, souligne Besbi, le Mimi, indique ce quotidien où l'on annonce une grande manifestation le mai contre la candidature de Macky Sall. Macky, seul contre tous, euh, constate l'indépendant qui évoque aussi le lancement du F24, une plateforme qui a pour objectif de défendre la démocratie et de lutter contre la troisième candidature, souligne Réumi Quotidien qui voit le F24 comme une nouvelle arme contre Macky Sall. Macky, dont l'appel au dialogue politique est décliné dans Bisby le jour par Abdoul Mbaye. a avoué tout et a ouvert la boîte de Pandore après son arrestation, nous apprend Libération, qui souligne qu'à la DC, les plaintes reçues sont passées de à Et le peuple quotidien révèle que c'est une plainte de Massali qui a déclenché cette affaire des groupes Facebook Topoka. Sadio Mané, lui, sera de retour dans le groupe annonce Tourelle dans Stade le quotidien du sport, qui le signale désormais focus sur City après avoir purgé sa sanction et son retour à l'entraînement.